jàllee ñu ñàkk seen seen ay doom ci ci li xew démb effectivement mooy lu lu doy waar euh, phénomène bi effectivement euh, taxawul te li ma gën a jaaxal sax xam nga ni actuellement ni dañ nekk presque ci période hiver xam nga ni hmm. même suñu jéggi woon euh, océan bi sax na a yegg fële te xam naa ne xale yi solu d'abord ndox mi hmm. te soluwuñu est-ce que dañ doon yegg Euh, Moustapha wax na ko léegi pratiquement sax mun nañ ko jàppee nii lii xaru la xaru la parce que nii dëkk bi tar tar tar nii dëkk bi woyof woyof woyof am na yoo xam ne nii soo ko bëggee dund wala soo ko bëggee traverser lu mel ni océan daanaka xaru la daa ngi ne bateau mais man gëmuma sax ni bateau la jàpp naa ni peut-être gaal la rek. gaal boo xam ne pirogue waaw pirogue la. pirogue euh, artisanal waaw euh, euh, donc pirogue la te condition yi comment ñu mun a yebee nit yu takkoo noonu les gens parlent de plus de trois cents hmm. personnes ci ci ci pirogue ne da ngay traverser pour dem te lu mu wax aussi dëgg la xam nga yàgg nañ ko wax fii man ñëw naa fi wax wax naa ko fii parce que ay xale yoo xam ne dañuy xam nga c'est pas gratuit hmm. c'est pas gratuit te xaalis bu takkul lañuy lañuy la ñuy fay ah pour traverser gaal gi wax nañ fi léegi euh, euh, euh, Nicaragua Nicaragua caaxaan <laughs> taxul a dem Nicaragua taxul a dem États-Unis au moins foofu avion ngay jël. avion ngay jël du benn avion li ci des ngay débrouiller ci benn avion da ngay jël avion jëlaat avion. Mhm. waa jaar fu nekk nag pour yegg foofu. da nga ci def da nga ci dépenser ay million ah mais millions yooyu am na ñoo xam ne fii soo jëlee ku mel ni par exemple sédiment soo dégg histoire mu ne la 60 000 francs la commencé ci ginaar. xale yi ak yore ay millions ne dañ koy dugal et puis avec la complicité des familles avec la complicité des familles d'accord c'est pourquoi on est c'est pourquoi moi je dis qu'on est dans une mm-hmm. crise sociétale mm-hmm. boo xam ne nii il faut que euh, euh, euh, famille yi d'abord mu am communication gars yi gën ci xeex fu may fu may fu may fu may fu may daanelee Birame waxoon naa ko fii ci émission bi ne ma invité fii ñu waxtaan ci problème mu mën problème mu situation mel bi dañu war a criminaliser les gens parce que xam nga actuellement nii xam nga da nga ne waaj bato bi xaw ma kii pirogue bi dafa ñëw ba ba ci presque tefes bi mais comme moteur la yore mënu nit ñi tëb waaw xam nga xam nga kuy kuy dawal la capitaine xam nga doo doo ko mos a dégg wala nga gis ko ñu ne lab na wala kii booy capitaine bi mhm. ay doomu aadama ñoo xam ne nii ay malheureusement ay xale yu ndaw xamuñ mënuñ fay xamuñu géej comme euh, sama sama mbokk Thiessois bi musul gis géej peut-être hmm. ah parce que léegi moom booy Dakar la <laughs> ah mais musuñu gis géej ñoo dañuy dugg ci géej bi pour dem ay traverser ay kilomètres et des kilomètres on doit criminaliser ce ce, phénomène là maanaam les passeurs parce que pirogue yi ñu koy am na ñu koy defar hmm. on doit remonter toute la chaine kiy defar pirogue bi pirogue bi ñu koy ñuy dugg ci pirogue bi ñi ñiy jël xaalis bi di encaisser booy yi seen xaalis di leen dugaloo ci ci yenn conditions yi ba yóbbu leen yàlla moom seen bakkan on doit même les criminels même les parents on doit parce que su nekkee man man dégg dégg naa fi benn histoire xale bu jigéen 18 ans la muy jàng nekk première ci yàggu yàggul dara ñu mu mu dugg ci dugg ci euh, euh, euh, bateau yi ci <laughs> pirogue yi ba far finalement yeggul yeggul ñu koy laaj mu ne ma dama dama dama dama bëgg a jàppale samay samay waajur 18 ans ku nekk première war a jàng école bàyyi école am ne day dugg ci mën bi ah moom ak benn sœur malheureusement même je pense que ses autres sœurs étaient décédées moom moo ci moo ci 18 ans comment un enfant de 18 ans nga doon jigéen en plus nga ne da ngay dugg ci ay bateau ne da ngay dem euh, bitim réew te bitim réew xoolal actuellement nii dem na États-Unis nga xool di New York on a on est on est en train de montrer ici benn benn am na benn vidéo bu ñuy montrer temps yi benn je pense que sax est-ce que sénégalais boobu euh, gars yi ne sénégalais la wala gambien la est-ce que jàppuñ ko plus de 80 personnes ci benn appartement. si si New York. New York jàpp nañ ko comment léegi yow yow yow sa kër fii. jàpp nañ ko loo bëri bëri di nga am nekk da nga am ku nga bokkal néeg. mais da ngay bokk ak appartement plus de quatre-vingts personnes ci condition yooyu ah liggéeyoo xëyuloo ba pare soo génnee ngay taaba taaba. dañ doon fay weer ñooñu dañ doon fay weer. waaw mais mais mais mais waay c'est vrai dañoo fay. dañ cent quatre-vingt mille lañu wax mais xoolal loolu. benn sous la leen la leen héberger sous en plus. ñoo hmm. ko bàyyi fii parce que euh, bàyyi fi sa étage bàyyi fi say say ceebu jën yooyu mais da dem fële di di di xoslu pour lan pour tekki te wóorul di parce que actuellement nii amul fenn ci àdduna bi cette crise là elle est mondiale. d'accord donc il faut que nit ñi delloo si seen xel bu am communication bu doy ñu criminaliser le le le réseau. d'accord ah parents yi aussi jël seen responsabilité par rapport ak seen doom.